ñoo ngi nuyu mbooloo mi ñëpp di siyaare ñëpp di balu àq ñëpp dañoo wax ne lépp looy def na ci jiital subhanahu wa taala mooy ñaan ndax dañ ne ñaan dañ ne addu'a muqul ibada kon nañu def fatiha falaqeeg naasi def salaatul ala nabi wala salaatul fatiha wala salaatu bu am way am ndigal mu def boobee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 قول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن سرقات السواق ومن نفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد قل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس القناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس قل اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب وضوائها وافي أبداني وشفائها ونور أبصاري وضيائها وقود الأرواح والشراب على آله وصحبه وسلم باقي اللهم صل على سيدنا فاطه لما أقلق والقاتم لما صباح الناس الحق بالعقل والهادي إلى صراطك المستقيم على قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما سلام في الدنيا والآخرة والسلام على المستوى الحمد لله رب العالمين تفضل الله نيلين leen di wax السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kàddu gi ñuy nuyoo nag mooy nuyoo jullit la waaye diggante ay mbokki jullitam waaye ay mbokki tamit am di jàmmam nuyoo bi ñuy nuyoo nag mooy dafa am lu waa Daaru Salaam ak waa Ersan ba Siin lu toll ci ñetti quartier ñoom ñoo booleel seen bopp boole xale yi boole étudiants yi boole imam yi boole bàjjenu gox yi boole relais yi boole ñépp pour laan pour lii nga xam ne moo xew ci jamono donte ñu ngi leen ciy dimbale ñoom ñu taxaw ñu ñu itam ndax dañ ne ndimbal na ca fekk loxol borom moo waral ñoom ñëpp ñi daje boo gisee mbooloo mi yëpp ñëwuñu dañoo tere dajal lu bari moo tax ñu tànn ñenn pour ñu jël ay kàddu loolu moo waral ñu defee ko nii kàddu yi nag li ñu jubli mooy waa ñi ko daje mbooloo mi dañoo wax ne dañoo jóg pour lii ñu doon def muy xeex ci wàllu euh, lii xew nga xam ne yàlla dogal mooy ab feebar te feebarkat bu xewee dañ ne kenn ku ne nga jóg sa matuwaay su ko defee ñi ñaan nag waa quartier bi ñëpp ñi nangul leen loolu waaye ànd ci ak ñoom ndax kenn ku ci ne sa bopp ngay defal te dañoo wax ni lii xew du kenn ku ko moom du ab président du ab ministre du ab député du kenn ndax jombul kenn comme feebar la nag ñëpp lay dal ñoo ngi ñaan tabaraka wa taala ñu itam ñu dugal suñuy loxo moo xam imaam nga moo xam noddkat nga moo xam dëlli nga moo xam loo doon rek ci gàttal ñu ngi ñaan ñépp ñu joxante loxo insha allahu fas yéene def xeex bii xeex bi nag damay wax ne ñett dañoo wax ne mooy mooy waral xeex bi ndax booy dem ci nga ci ci xeex dafa am ngànnaay boo yor bokk na ci première ngànnaay masque yii ñu xam ñu ngi koy joxe bokk na ci ngànnaay yi bu ñu koy joxee mooy dafa am suñu benn mbokk bu baax fa tabaarakàlla ñu koy wax Euh, le maire Sayar am defe naa moom moo joxe yii jox ko waa waa gox bi ne leen ngeen commencé li ko su ko defee loolu nag du moom kese la ñu tàllal waaye dañoo tàllal mbooleem ku nekk ci at ci ci kees wala mbooleem ku nekk ci réew mi ak foo mën a nekk nga dégg ko ñu ngi leen tàllal loxo pour nga jàppale ni ci loolu rawatina nag waa kees waaye rawatina waa Daaru Salaam ak autorité Hersent ak autorité Sine yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñu jàpp ci lii kon li ñu wax ne ah nga xam ne dafa tolloo bokk na ca xeex ba lii may def sama loxo daa bokk ci xeex bi moom itam lii may def sama loxo da cee bokk muy ñaar muy masque yi ak lii di sel bi am na bu ko ñetteel mooy dañoo wax ne yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne lépp luy ñëw ab jaam daf koy doo ak ñaan pour nettali la benn xibaar damoon nañ dañ ne ci jamonoy alaaji ma radiyallahu taala wala jamonoy mag ña keroog ba alxaji Maalik radiyallaahu taala dafa am lu mu digle woon nee na ñett yi de danaa leen ko jox mu ne bu njëkk mooy nangeen def ñaan ndax kat njiit day ñaan kon ñun imaam liñ ci am mooy ñaan subhaanahu wa taala bu ñu demee ci néegu yàlla ñu tàllal suñu loxo toroxlu ñaan subhaanahu wa taala nii yàlla na fi jógee bi ko ñaareel gannaaw ñaan ñii saraxe buñ ne saraxe nag mooy lii nit ñi def saraxe la mooy kenn ku ne li nga am mo xam ceeb la mo xam diwlin la mo xam saabu la mo xam lu mu doon nga def ko di ko joxe manam ak ñaan la ba masque yi ñi def ko def yaa ngi def sarax loolu ñu tuddee sarax pour dimbale nit ñi ci sa lay kàttan ndax yàlla nee na lu ngeen dépassé jaamu yàlla yi man ngeen ko defal kon loolu fa tabaarakaal lu am solo la bi ko ñeenteel nag mooy al atiba mooy ñan mooy docteur yi docteur yi nga xam ne dogal lii seen matière la ñoom la ko yàlla dénk luñ ñu ci wax ñi góor ñu góorgóorlu ci def suñ kemtalaay kattan buñ leen dakk leen masque nañu takk buñ ne diwu leen nañ leen diw buñ leen tëdd leen nañ leen tëdd bu ne bu leen dem buñ dem su ko defee loolu la ci am solo su ko defee kon lool rek lañ doon wax ay kàddu di ko ubbil nag nit ñi ñun sax dañoo wax ñu ubbil leen rek def ñaan waaye insha allahu daal la dogal nga xam ne imaam yi nekk fii ci kees wala ci côté bii nga xam ne ñoo nekkee est bi ba daaru salaam yàlla dafa dogal man maay seen président imaam yi ñu am association mu am ay kayit am lépp am récépissé am lepp fa tabarakallah moo tax nag mbir mi ñun dañ ci bok insha allah jàppante ko yéen bu ñu démé ci juma ya ak jakka ya ak fu ñuy waxtaane yépp dañ ko ci bolé ndax nit ñi dimbali bi kenn wu kenn kenn ko ne ci bop ngay dimbali la alquran waxo ne man amila saalihan fa li nafsi ku def sa bop nga defal kon ñoo ngi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp ah ñi ubé cadre rek moy arona njaay ah man na am mom ak ñu ko bok ah, xalaat bi génné sen ki kon ñu jërëm leen ñi ñaanal leen yalla ni yàlla yalla yàlla fay leen mbokk yi ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di remercier ñi fi présenté wu ñëpp di xam leen nit ñi ne leen aussi problème mu corona bi Covid 19 bi mo waral ñu limiter pour mëna respecter les mesures barrières même mbolo bi ëpp na li parce que en fait bu ñu ben benn bu ndaw wax li waral mbootaay bi jotaay bi lu ko waral daw ñu toog benn jamono ñu xool bi corona bi commencé bi mu commencé ñu gis ne nit ñi ñu ngi lutter contre le corona mais d'une manière dispersée ku nekk nekk sa benn ruq di am looy def di yëngu sa yëngu yu ndaw mais loola corona bi ñu xool ne dafa ébranler les les grandes puissances pays yu mag yëpp ébranlé na leen ab bon ñu ne ñun nous habitons dans un pays très pauvre boo xam ne Afrique la ne amul yenn moyens yi donc là, dans Europe bu ñu dalee on se dit que nous sommes dans le monde des grands ensembles pourquoi ne pas nous boole une nga xam ne force vive yi nekk fii ñu pour nous quelque chose de concret ci que nous les ASC yi nga dans la zone Il y a 8 ASC entre Ersan Darussalam, Nimzat Bagdad Chine ñu avons une association de femmes yi fi les jeunes impliqués les postes de santé les ICP les présents de comité de gestion ci santé nous ñoom ñëpp ñu boole pour que nous mun a am impact Nous xeex boo xam bu am solo lay don par rapport au Covid nga xam dañ ko au moins lolu mo waraloon ñu dajaloo biñ ko commencé dañ ne dañuy commencé R100 Daaru salam. mais par la suite l'affaire est devenue plus grand que qu'on l'espérait parce que c'est devenu une affaire communale parce que la convention des femmes le conseil consultatif des femmes de thiès ils ont rallié le mouvement. Les étudiants de Thiès, ils ont rallié le mouvement. Donc, le dynamique qui jeunes, jeunes, jeunes dynamiques, une association, tout le monde a rallié. loolu mo waral jotay bi tay loolu nak mu impliqué né dañu né dañuy xeex corona on commence d'abord béy ci sa wewu tànk nit ki li ngay xeex da ngay commencé sa kër ngay commencé d'abord geste yi nga xamné mom lañu demander. ku ci nekk commencé ko sa biir kër war koo mun a génn ci biti parce que ASC yi nga xam ne ñoom ñoo constitué woon mbir mi dañoo wax ne ASC yi ay relais ay relais la ñu war a doon parce que ay facteur de développement la ñu war a doon ASC bi ka nekk jeune la mais mag la responsable la mais ci kër gi la génne bu conscientiser waa kër gi conscientiser ñi mu xam ku ne conscientiser sa morom ñu ñu respecter les mesures barrières jël les mesures d'hygiène yi war gëm nañ ne corona bi boobaa dinañ ci mun def dara loo xam ne lu concret lay doon parce que démb rek on a écouté le président de la République muy wax ne ils vont appuyer les programmes locaux yi nga xam ne dinañ def dara par rapport à la lutte contre le Covid ñun nous tendons les bras nous nous disons que nous sommes prêts à travailler pour que Covid bi jóge fi parce que lii moom musiba la boo xam ne même sa noon bu ko tu n'es pas en paix yow bi mu doon sa noon parce que ragal nga mu wàll la ko bu demee nag ba ku nekk di moytu sa morom y' a danger le corona bi moko andi donc on s'est dit que ne nañu xex mu teel fee jóge ñu mëna déllu ci suñu activité yi nga xamné ne lañu xalam suñu suñu familiarité à l'africaine di saafonte bi ñu xamone loolu lépp corona bi xañ nañu ko té maladie bi waru ñu xañ lool donc war nañu mëna xex ensemble nous disons ensemble personne n'est mis à l'écart tout le monde est concerné ni ko Marème Deme di waxé tous pour un un pour tous dafa naa noonu la koy waxee donc nañ ci àndandoo ci ci félicité parce que moom je ci initiative bu mi ngi dem ci daara yi di jox ndogu chaque jour mu assuré ko ñaari daara dañ ko ci félicité di ko ci remercier par rapport à cela nous wax ne monsieur le maire de la ville gis nañ action yi muy def ci daara yi aussi di mais nag des na de ko parce que vraiment du yóbbu añ 22 heures lay egg fekk ndongo kooku aussi nañ gëna mëna améliorer service bobu doon na ci am solo lool ngeen bal ma ak bu fekkante ne wax ji am na leen lu ci dëng dañu bëggoon rek ñëpp àndandoo ñu xéxando Covid bi yalla nañu yàlla may ndam ci barke yonent yàlla Mouhamed je vous remercie. ñëpp Saliou Diakhaté président zone 5A de l'ODCAV de Thiès donc euh, ici représenté donc euh, en même temps je suis président de zone mais donc je représente en même temps ODCAV. représente fii président zone yi représente en même temps les ASC donc comme vous le savez ñun ñëpp bi euh, pandémie bi duggee ci Sénégal pratiquement li ñu wax rek naan ku nekk da ko sentir sa côté de telle sorte que avant ñuy woote lii ASC pratiquement ku nekk yaa ngi toog ci sa ruq commencé defar say masque commencé wut say lave-mains c'est trouvé que bi ñu toogee ni gis ni ku nekk di ko def parallèle ñu ni pourquoi pas ñu regrouper wu l'idée donc est venue de Arona Ndiaye qui nous a fait appel ñu ni donc pourquoi pas ñu commencer suñu zone comme ni ñu ko wolof di waxee beew bay sew tànk ci lañ nekkoon pourquoi pas ñu convoqué ASC Darou Salam ASC yi nekk si zone bi R100 Bisso Ramdan euh, Kër xa cité Kër Xaadim loolu moo war a tey ñu ni nañu regroupé wu former benn bloc parce que yaakaar naa mbooloo mooy doole loolu moo waral ñu ni léegi nañu boole suñu doole suñu force yëpp bu ko defee guerre bi ñu mën see dugg à cent pour cent mën a combattre donc le fléau ki nga xam ne mi ngi mettre le pays à zone donc loolu moo waral tey suñu teewaay fii de te sorte que léegi comme ñun ay agents de développement lañu ba pare ay vecteurs de voie lañu léegi moo tax ñun tey pourquoi pas bu ñu dikkee à travers nos discours ñu sensibiliser davantage ASC e yi bu ñu demee informer suñu délégué yi suñu délégué yi informer seen membres yi ASC comme quoi ñu gën a respecter les consignes prescrites par les les les médecins comme quoi lave-mains yi porter les masques euh, loolu lépp moo war a tey ñu ni nañu def benn bloc pour mën a gën a mën a xeex le Covid 19 qui nga xam ne actuellement le pays à zone bu ñu waxee le pays à zone pratiquement dara dara doxul même ki nga xam dafa yore salaire am sax di fayeku yaakaar na mi ngi dox sax bi magasin bi tëjee il a des problèmes donc mooy wane li ñu wax rek bu fekkee yow nga taxaw nga ni tout est ok c'est toi tu te nga dem ba boutique bi nga xam ne fa nga waroon dem di fa jël ji marché bi nga xam da nga waroon dem di fa dugg oto bi nga waroon xam di fa voyage sax yooyu yëpp day poser problème donc comme bien vrai que le président a parlé mais comme vous le savez le virus e avec nous donc leen moo fi nekk sa non bu nekk ak mom da ngay xol nan ngay xex ak mom bien vrai que man nga dekk ak mom li ñuy wax wala di wax rek nan and ak kuy nan sangar ça va pas dire que da ngay nan sangar donc virus bi du nekk ak ñun ça va pas dire que on doit rester les bras croisés dañu wara xex xol nan la xexé virus bi de telle sorte que mi ngi ak ñun mais ñu buñu respecter les barrières respecter consigne yakar na quelque soit alpha situation bi bu mu yag yag dinañu mëna xex ak mom guerre bi fu mu ñu di rek dañ koy mu di combattre donc loolu laa amoon rek comme discours la amoon donc vraiment c'est ça lu jaxate ko yu may jëm cinq ans de récart de Thiès ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te ñi fi teew di kontaan ci initiative bi ndax Arona Ndiaye mi mi fi ñëw ànd ak ñoom Marème Dem Arona suñu rakk la te ñoom Marème Dem ñi ñu ngi nuyu ci au niveau ci comité santé monsieur le maire ngi di Basir Bokum toog ak ñi ko wër ñoom Aliou Diop bu service d'hygiène ku ci nekk vraiment ak xale yi fi toog ñoom Ablaye Ndiaye ñi ñëpp ku ci nekk quartier bi bañ ci sa wax parce que bay sa wax mooy démb dégg ñu discours du président de la République vraiment mu nekk discours bi ñu rafet la ndax réew mi ñun ñëpp a ko bokk lii mas mi bu amee ñu ko bi gis ñëw bii ku ci nekk war nga ci dugal soxal fii ma toog nii tey di wax actuellement nii poste de santé bi la ñu nekk te ñun sommes d' abord les premiers à recevoir quiconque ndax fi nga jëkk a ñëw raison pour laquelle sax li ngeen li ñu teg nii ku ñëw rek da nga raxasu la ñu santaane di ko def raxasu laal alxuraan ainsi de yàlla nag mooy musal ku ku ku mucc kon nag lii da loo xam ne buñ ko defee suñu bopp lañ ko defal ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ba mu fi ba mu njëkkee am waa maire est bi lan jox gis nañ ko ñu am Bassirou Diop ak ñoom monsieur le maire bi nekk fële ñoom Talla ku nekk vraiment daf ko ci sa wàll kontaan nañu xale yi nag ñi fi nekk fii ci instant ñoom jàmbaar lañu ndax ASC yi tey juglu ASC yi ñun ñii ñoo ko créé presque boo seetee te yàgg na Adouna Ndiaye mii dafa yàgg ci ASC 1983 maanaam ñu ko moom te ñun dañoo doon ba bàyyi ko fi bàyyi leen fi ñeneen ñëw nekk fi di liggéey kon ku nit di nekk da koy bay sawar ndax dugg ci quartier bi sensibiliser yéen nit ñi raxasu leen doxali leen ni sa bopp nga ko defal ndax ku am santé am nga lépp sa la santé elle est primordiale tout ndax sans la santé on ne rien faire on ne en acteur développement ndax boo wérul looy mën a def kon na ko ni ñu ko waxee na ko acteur de santé santaane nañ ko doxalee noonu vraiment euh, li duuf ci nag yi xajul ci cin bi dama ne rek naa wax ci turu ñi fi nekk ñi may bokk di liggéey mooy personnel médical bi fi nekk ay ma madame Seck ak Fatou euh, Cissé ak waa comité de santé ñoom monsieur Thiam ñi nga xam ne ku nekk jàpp ci ndax lii moom ku ci nekk daf ci bay sa waar te loo xam ne moom yal nañ ci yàlla génne la ñu nag mooy li waa kër docteur bi wax kenn mënu cee mucc kenn mënu cee mucc li ñu ci mën a dimbale mooy nul ne épargne ku nekk daal danga nga ci bay sawaar bay sawaar mooy la ñu mooy barrière yi na na nga dafee ndigal bàyyi tere ñu ngi leen di gërëm di leen sant loolu rek lañ amoon loo xam ne ñu ngi ko ci wax di leen gërëm di leen sant yal na nu yàlla jàppale kenn ku ci nekk ci turam ak santam may wax rek pour éviter répétition comme yu euh, ci bëri wax nañ ko ba pare maa ngi fi maa ngi tudd mariam dem di agent développement communautaire maa ngi fi toogal mën naa wax ni ka benn jigéenu aduna bi jigéenu sénégal jigéenu thiès rawatina sama gox toogal fi encore que jigéenu plateforme départementale mooy départ Thiès ay département jigéen ñi lañ def benn kuréel ma bokk ci bokkaat itamit ci comité consultatif des femmes de la commune de la zone est toogal leen fi encore toogalaat fi CDS bi taxawalaat fi itamit sama gox R100 groupement féminin yi waaw man nag euh, li may wax rek mooy côté sensibilisation surtout kër yi jigéen ñi ñoom ñoo fi nekk ñoo nekk ci mbedd mi itamit ñoo nekk ak njaboot gi ñi ngi leen di ñaax defe naa ni lii ku ko seetaan itamit vraiment war nga ñu mën a jàppale ci xeex bi ni ñuy jàppale ci xeex bi mooy sensibilisation bi ñu ngi koy war a tàmbalee ci biir kër gi mu génn ci mbedd mi ñaax njaboot gi gën leen a protéger ndax euh, itamit lii du caaxaan du caaxaan waaw au passage itamit euh, may euh, remercier benn association de jeunes ju tudd mbooloo xeex mbas mi muy ñoom Assane Diop ñoo xamante ni à travers Thiès quartier bu nekk ñi ngi fay dem di sensibiliser di maye ay masque yooyu ñëw nañu fii seen lancement fii lañ ma ko defalee ci poste de santé bi ci sama gox bi di leen encourager yi tamit ñoom ci seen ay liggéey woowoon nañ leen sax mais pour ñu fekkee lii mais jotuñu leen di leen euh, encourager yéen tamit yéen journalistes yi nga xamante ni yéen a nekk sur le terrain di dàqanteeg jàngoro ji tamit yàlla musal leen ci yàlla aar leen itamit ba xeex bi itamit daal tout un chacun jàppale ñu ci monsieur le maire Talla Sylla aussi mënuma pare te remercier wu ma ko parce que comme ni ko Arouna Ndiaye waxee rek euh, taalibe daal yi nga xamante ne dama leen di jàppale que yi ma njëkk a confectionné moom moo ci njëkk a dugal loxoom waaw vraiment di ko remercier itamit au passage daal Mariam Deme asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di ziyaare bu baax waa Thiès commune bu R100 Darou Salaam ak yëpp di rafetlu liggéey bi di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla jëlee mbas mi nga xamante ni moo lëmbee àdduna bi moo di ñëw nag si turu monsieur le maire Sayer Mangane mi nga xamante ni daanaka mi ngi liggéey liggéey bu am solo boo xamante ni si Thiès rawatina si goxam muy Darou Salaam euh, si sensibiliser nit ñi si dimbali nit ñi si bu askan wi soxlaa aussi mu jug taxaw ànd ak ñoom si liggéey bu rafet bi nga xamante ni mi ngi koy def donc ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax baax di rafetlu taxawaayam ñun waa ndaw daaru salaam yëpp ndax man si daaru salaam laa bokk ndax masque yi nga gis aussi moom moo ko defar ah, jox ko askanam jox ko aussi nit ñi te mi ngi siy liggéey aussi lu am solo loo xamante ni aussi macha allah donc dañ koy ñaanal wér euh, yokkute fi mu bëgg àgg aussi mu àgg fa donc xëy na peut-être loolu daal mooy kàddu yi donc rafetlu daal taxawayam ak ligeyam aussi di bëgg daal si mom diko ñaanal aussi di ñaanal aussi euh, waa aduna bi yëpp rawatina waa Sénégal na wa Thiès aussi mbir mi jóge fi ndax bu fi jógee rek ñëpp delluwaat seen i activité merci beaucoup Moustapha silla municipal président de la commission santé de la commune de Thiès s d'abord euh, ñu ngi ziar ñëpp di len nuyu di revenir un peu sur la sensibilisation bi nga xamanteni moo structure mais surtout euh, di ne sais bi lu muy une structure. metti réussir sur le plan de la communication le coronavirus amul ko xamul le problème est réglé maintenant naka lañ sur le sur point boobu la insister euh, li fi li fi jaar wax nañ l'essentiel mais man intervention rek d'après le président discours président Demb, bañ ko déggee ñu bëri dañoo xaw a relâché wu wala yaakaar ne mbir mi on on dépose les armes et on reprend alors que tel n'est pas le cas c'est aujourd'hui la ñu war a gën ne pas baisser les bras gëna xex xeex jàkkaarloog mbir mi parce que comme niko comme niko ko benn kilifa doon waxee rek mbir mi ñaar la corona dafay juggé wala ñun ñu juggé fi té ñun bëgg faire ñu fee jógee kon nañu jël suñuy matukaay ànd xeex sensibiliser respecter les mesures barrières en attendant mbir mi xaw a wàññeeku di gërëm ñëpp di ziar ñëpp di gërëm les populations de R100 ak acteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, panel bi nga xamante ne mu ngi tudd les ASC contre le Covid 19 di leen encourager et di leen wax ne aussi les structures l'administration, la mairie les autorités municipales sont à leur disposition pour les accompagner je vous remercie.